ñuy ànd kon ak euh, Mamadou Ibra kan jiite éditeur ak diffuseur de presse maanaam patronat bi euh, sëñ bi kan ñu ngi lay nuyu président. waaw maa ngi lay am nañu mbégte lool ànd ak yow ci euh, waxtaan wi alors dañu koy door ak li actualité muy mbirum Cheikh Yérim sekk ñu tuumaal ko siiwal ay xibaar yoo xam ni wérul mu doon janoo ak juge bi dem ba ginnaaw ñaari fan yoo xam ni fanaan na ko ci gendarmerie bu conk bala ñuy ñëw ci ni yëf demee ak li wundu noo jàng jàngatee euh, xëy na rebondissement bi ndax ñu bari mandat de dépôt ci doon xaar lool itam la parquet bi bëggoon yow ban gis-gis nga am ci rebondissement bi maanaam euh, contrôle judiciaire bi nga xam ne moo euh, mujjee am ci Cheikh Yérim Seck. waaw ñu ngi jëkk a rafetlu le fait que euh, Cheikh Yérim Seck këram cest à maanaam euh, procureur de la République dafa laajoon ñu tëj ko kaso mais doyen de juges daal di jël beneen comme décision mooy loolu nga wax ne comme surprise la. Hmm. Euh, loolu nag euh, su amee parce que opinion publique sénégalaise euh, les organisations de la société civile euh, les organisations des associations des médias ñoom ñëpp dañu mobiliser woon pour que ñu euh, libérer Cheikh Yérim Seck donc loolu moo am euh, ñu ngi koy rafetlu parce que vraiment ñaawteef la woon pour Sénégal dans un pays qui se veut démocratique ñu ne du ji tëj journaliste donc loolu c'est euh, une mesure d'un autre âge si démocratie kenn warul tëj nit ndax dafa xalaat dara wala dafa wax dara euh, loolu ñuy woy délit de presse et malheureusement nag Sénégal Euh, suñu code de la presse suñu code pénal suñu code de procédure pénale dafa prévoir ay daan yu métti euh, pour euh, les journalistes ak les citoyens te loolu menace la pour la liberté de presse et la liberté d'expression Mhm. liberté de presse boobu ñu bëri euh, njàkkare lañ ci am bi ñu woowee Cheikh Yérim Seck mais ñeneen ci geneen wet gi euh, Mamadou Ibra Kane dañu wax ne itam euh, bu fekkente ni Cheikh Yérim li mu wax du dëgg mën naa nekk lu graaw bu ñu ko méngalee xëy na ak yeneen mbir yu mun a am est-ce que code de la presse bi prévoir na aussi ay daan yoo xamante ni mun na tax du ko jóg rek wax lu la neex wala génnee xibaar boo xam ni teguloo ko fenn déprisonnalisation bi maanaam ñu bañ la tëj kaso moom ngeen ci doon doon wut waaye est-ce que am na leneen lu koy wuutu pour dalal xelu ñi nga xam ne jàpp nañu ne bu ñu bàyyee taskatu xibaar yi rek lu leen neex la ñuy wax xibaar yu leen yu ñu dégg xëy na duñu ko sax vérifier daal di koy siiwal tey aussi mu mun a gàkkal ñeneen ci geneen wet. waaw c'est que li nga wax dañ ko war a ràññee ci ay poñ yu bare. Hmm. d'abord liberté de la presse euh, c'est inacceptable dans un pays de droit ñu tëj un journaliste simplement parce que dafa am xibaar bu mu topp hmm. dans tous les pays démocratiques du monde loolu euh, léegi ñu ngi koy wooye dépénalisation des délits de presse hmm. maanaam du dootuñu mën a tëj un journaliste simplement parce que dafa génne xibaar wala dafa am une prise de position hmm. euh, euh, ñaareel bi loolu ça ne veut pas dire que les journalistes sont au-dessus de la loi am na ay daan yi nga xam ne mën nañ ko daan un journaliste Euh, muy euh, ay sanctions donc administratives wala ay sanctions pécuniaires. Hmm. te sanction bu nga xam ne moom moo si gën a ëpp doole. Hmm. mooy euh, dañ koy retirer la carte de presse. te buñ ko retirer la carte de presse mu ngi mel ni un médecin bu nga xam ne dañ ko radier de l'ordre des médecins wala un avocat bu nga xam ne dañ ko radier du bureau hmm. maanaam. dootul mun a liggéey en tant que journaliste wala en tant que médecin wala en tant qu'avocat hmm. donc am na ay daan yi nga xam ne euh, dans un état de droit mun nañ ko jël te du te duñu ñu tëj nit ki euh, en prison donc euh, ñun ñu yaakaar ne état de droit Cheikh Yérim Seck mënoon nañ ko bañ a emprisonné pour après le doyen des juges daal di koy libérer Euh, parce que loolu c'est une intimidation maanaam dañuy xoqatal euh, dañu xoqatal euh, Cheikh Yérim Seck mais aussi dañu xoqatal bépp journaliste bu nekk fii Sénégal. donc surtout ñuy def investigation. voilà ñu ne boo fi waxee yenn dëgg yi dégg boo joxee yenn information yi dégg nga bu nañ la tëj kaso donc loolu xoqatal la c'est une menace très grave pour la liberté de presse. au Sénégal. Mm. teewul nag bu fekkee ne journaliste euh, dafa juum dégg nga joxe information bu bu nga xam ne euh, àndul ak yoon euh, effectivement kooku journaliste boobu dañ ko war a sanctionné. comme lu mel ni yenn xibaar. non effectivement am na am na fausse nouvelle comme par exemple ñu ngi nii euh, si jamono. comme coronavirus bi. Mhm. ñu jékki-jékki rek benn journaliste ne am na suñu benn euh, tradupraticien bu nga xam ne am na garab bu ko gis euh, contre le coronavirus. Mm. te loolu donc fondé wu ko fenn parce que pour am garab bu nga xam ne moom mun a faj. benn jàngoro mhm. dafa am yoon bu nga xam ne foofu la war jaar pour ñu mun a prouver la vérité euh, la véracité mhm. donc euh, am na daal ay fànn yu bari yu bari yi nga xam ne journaliste dina mën jum. Mhm. waaw. d'accord alors lu ñeel Cheikh Yérim Seck euh, ni ko Elisabeth Junjee sànq gis nañu ñuy wax euh, source ak preuve euh, Cheikh Yérim nanguwul joxe source maanaam fi xibaar bi jóge euh, loolu lu normal la mais euh, nit tamit loo wax ñenn jàpp nañu ne war nga mun a indi ay firnde donc est-ce que source ak preuve am na différence ak itam différence bi fan la yem. waaw euh, d'abord euh, un journaliste moom buy liggéey. Mm-hmm. dafay liggéey ak ay nit yu nga xam ne ñoo ko wóolu. Mm-hmm. ñu jox ko information. Mm-hmm. moom information boobu su ko jotee moom journaliste bi dafay vérifier euh, ndegam information bi elle est fiable ou pas wala du nekk manipulation donc euh, moom information yi muy jot. dégg nga dafa war a protéger sa source dans tous les pays du monde encore une fois mm. euh, te journaliste warul dévoiler ses sources mm. maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo koy informer mm-hmm. euh, te euh, moom du ci kanam Cheikh Yérim Seck mm. du ci kanamu gendarmerie nationale wala enquêteur bu munti nekk la war a joxe ses sources mm-hmm. la war a joxe également les preuves d'accord si boobu tribunal bi CG euh, comme dañ ko woo si yoon euh, au niveau du tribunal moom foofu dégg nga dina mun a joxe ay preuves éventuellement kenn waxul tey ne Cheikh Yérim Seck dafa am dëgg dégg nga wala amul dëgg mais jour bu jugement bi amee euh, d'autant que affaire Bati Plus bi hmm. actuellement mu ngi au niveau de la justice dégg nga certainement dina leeral euh, yenn faits yi dina leeral la procédure comme concernant cette affaire là. Mm. et mun na am Cheikh Yérim Seck dina si am wàll. Mm. pour mun a joxe ay preuves concernant euh, information yooyu mu joxe. mais est-ce que bu ñu yeggoon ci procès Cheikh Yérim Seck wareef lay nekk ci moom mu indi ay preuves su loolu yoon dal ci kawam. non non non non non dire que. Euh, affaire Bati plus moom dafay continuer nu mu war a continuer mm. dégg nga euh, mais euh, euh, plainte bi nga xam ne dañ ko def ci kaw Cheikh Yérim Seck donc mm. moom si boobu waaw boobu boobu laa wax waaw waaw waaw si mm. boobu moom dafa war a joxe effectivement les preuves les preuves de ces allégations comme ni ñu koy waxee ci tubaab quoi c'est-à-dire que li li mu wax si lan la ko teg dégg nga. Mhm. pour mun ko wax. Euh, et donc dans ce cas xool ne gam diffusion de fausse nouvelle la ou bien non. Mm-hmm. yaa ngi junj sànq code de la presse bi est-ce que code bi wax nañu bu bees bi nga xam ne ñu ngi koy xaar am na ay coppite yu bëri code boobu ndax bu ñëwee dana am lu mu changer xëy na ci risques yi nga xam ne journalistes yi euh, tout le temps ñu ngi jànkonteel ak moom. Euh, euh bon code de la presse bi nag. Euh, xam nga ñu ngi ko adopté depuis juin 2017 léegi mu def ñetti at euh, le samedi le samedi 20 lay def ñetti at euh, code boobu nag mooy code bi nga xam ne président Macky Sall moom moo ko bindaat dégg nga bu joxe ko assemblée nationale assemblée national daal di koy voté au mois de juin 2017 moom président de la république daal di koy promulgué donc depuis juin 2017 euh, euh, euh, juillet 2017 code boobu moom moo régir la profession de journaliste et tout le secteur de la presse mais code boobu dafa nekk un recul par rapport ak code bi nga xam ne moom de conférence nationale bi nga xam ne mu ngi débuté woon en septembre 2009 mu adopté un projet de code consensuel projet de code consensuel boobu nag c'était un projet de code pour la dépénalisation des délits de presse euh, sous l'initiative du président Abdoulaye Wade mm. euh, donc octobre 2010 ñu daal di adopté un projet de code consensuel te jamono boobu sax président de la République nee woon moom du si changer noonu la ko présenté au niveau de l'Assemblée nationale mm. mais Assemblée nationale musul nangu adopté code de la presse bu nga xam ne dañu euh, dépénaliser les délits de presse euh, mu nekk sous le président Abdoulaye Wade mu nekk su le président Macky Sall donc euh, la majorité présidentielle nanguwul woon code de la presse bu nga xam ne dañuy dépénaliser les délits de presse que code boobu jëlaat di koy adopté en 2016 nag le président de la République daa di am jël initiative réécrire le code de la presse mm. maanaam euh, tous les délits de presse yi nga xam ne dañ leen dépénaliser woon mm. mu daal di réinstaurer la pénalisation des délits de presse euh, maanaam donc euh, les journalistes pour lieu que ñu affecté leen ay sanctions administratives ak financières rek mm. mais dañ leen di affecté waat ay sanctions yi nga xam ne des sanctions privatives de liberté maanaam Euh, ay sanctions yi nga xam ne day ànd ak emprisonnement. Mm. loolu nag euh, véritablement recul la. Mm. Euh, pour Sénégal parce que un journaliste kenn mënu ko tëj. à cause de sa profession. donc loolu ñu ngi koy ñaawlu mais rapport de force bi loolu la wone pour le moment Sénégal. Mm. loolu la mën a joxe. et ñu ñaan yàlla que dans l' Euh, tous les délits de presse puissent être dépénalisés léegi nag teewul code de la presse bi am na yeneen fànn yi nga xam ne euh, c'est très intéressant pour le secteur des médias mm. comme par exemple euh, donc assainissement pour l'accès à la profession parce que ñun su ñun suñu biir journalistes yi am na ay samba boy yu bëri yi nga xam ne amuñu benn qualification mm. ay maître chanteur la ñu Euh, du nu ñuy defee journalisme du noonu lañ ko war a defee ak yooyu mm-hmm. et cetera ñaareel bi aussi euh, pour les entreprises de presse homogoulette euh, dans l'arsenal juridique mm-hmm. sénégalais mu am le statut entreprise de presse bu nga xam ne moom dafa différent mm-hmm. ak le statut des autres entreprises donc commerciales ñetteel bi Euh, am na li nga xam ne ñu ngi koy wooye fonds d'appui et de développement de la presse mm. mu nga xam ne une sorte de banque bo nga xam ne dina mun a financer euh, les entreprises de presse donc yooyu yeneen euh, coppite la yi nga xam ne mm. c'est positif pour le secteur de la presse mm. mais teewul suñu code de la presse c'est un code qui une régression par rapport à la liberté de la presse à la liberté d'expression. jërëjëf Mamadou Ibra Kane ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte mu rey ànd ak yow ci waxtaan wi tey euh, fàttali ni yow yaa jiite CDEPS muy euh, kuréel gi ëmb euh, diffuseur ak éditeur de presse fii ci Sénégal ñu yendoog jàmm kan jërëjëf.